n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daa di fay def alimentation daa di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp loo soxla boutique Total bi yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow butik kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ne décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax

nekk dans la de Touba. yaa loo ci ñaan may la loo ci ci la nga ne ci la xewal yi shahr ramadan ya karim ramadan ya habib ramadan mu ëmb yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellul ci yàlla lu mën ci lu baax bul ci tay mengook safaan ba nanga ko baay que aw fin moom moom danga koy am rek wujj di dara taggal sa fit rek te góorgóorlu waaw boo xoolee ci man rek daanaka sa fit da daal di dëgër ndax man loolu def naa ko ñëpp xam nañ ko lu leer waaw xanaa xamoo ne man soldat laa woon dem naa guerre bu ne hmm. waaw bu ne dem naa fa ah, guerre bi mujj dem téeméer nit ak fukk lañ woon hmm. gars yi ma àndaloon ñëpp a dee maa kenn donc ci son muy muy muy sàng te moom daa sacrifié woon boppam rey ay nit ngir bëgg a waat waaw li mu wax nii mat naa ci seere Iba Jaaj moom àndaloon dem ca guerre bi mhm. moo ma ko doon wax nee na moom nu ne fitale na ne sëgg na di fital benn di fital sukk di fital nu ne fitale na ne te bal bu tubaabu téeméeri tubaab ak juróom-ñeen fukk ay dee waaw dëgg Iba daa daw sax Iba daa daw Iba moom daa xam naa li moo tax mu mën la jëndati waaye ñi ma àndaloon ñëpp a dee kii ci la ci la maama kii ndaamal kajoor bi ñoom ñoom wax ndaamal kajoor li ndaamal kajoor li tubaab yi wax avion avion saa maam aw na ko. muy naaw loolu kay maa ko gis. <laughs> xanaa xanaa xanaa loolu loolu doy na kii kii de lu mu lox ci wu fi itam. Ah. am na lu ci des. gis nga man mi nga xam ne dama ko doon jéem a roy. xamuñu ma dem te Kajoor te gàdd njës. Iba Jaañ dajaleel ma gone yi ma jongal fa juróom-ñeent waaw. maa leen jongal <laughs> waaw waaw wax dëgg <laughs> waaw Tons. waaw yéen ngi fàttali waaw. xam naa ni sëñ Ousou xat nga lool ci jamono ji mhm, mhm. ndax boo nee ba mënoo génn ci koñ bi kenn la kenn wóolootu la mhm. loolu dafa metti waaye nag na nga xam ni mbubboo gi ngay mbubboo nga ne doomi kilifa yi doom doomu sëñ diwa ma jur sëñ diwa ma jur ku am daraja ku am kii nga ni moo la jur fexe am qualité bu baax fexe am ju rafet ju ñëpp di toppe moo ëpp saa boo ko sàkkoo ci sa bopp rek di ko am te nit ki saa boo waxee lu dëgg wax nar boobu mu nar dina dem ba aras daa ne man diwoo ma fen doomi diw ak diw kon tedd kon loolu kawe na te bariwaay na lu yàqu ci àdduna benn fen rek ci la jóge ba loolu lépp yàqu ay kilifa yu bàyyante ay nit ñu sequb liggéey ñaawoo ak yeneen ak yeneen yu mu ëmb yoo xam ne nit rek jikkooy nit rek moo fa jaar wax ci benn baat boo xam ne dara laalewu ci lépp ay fen la te fen yooye moo dem ba tas dëkk bi mhm. kon jikko la yoo xam ne képp ku nekk ci yow war ngaa ñaan suñ boroom tàqale laa ak moom te xam ni bokk na ci jikko yi gën a ñaaw ci ci jullit kon nañ ko bàyyi xel waaye yàlla baax na weeru koor bi mataa ci man loo ne nii bis nekk tey bàyyi naa fen weer naa ko war ba mu jox tàcc duuru mu def dara naq yàlla loolu maa la ko wax yéen kon li ngeen fi wax lépp du dëgg a ma bett moom li magum jëm yu xanaa moom xanaa moom amul leen lenn lu ngeen def nekkate kon li ngeen fi wax yépp du dëgg xanaa moom ci weeru koor bi ah, pataq ci yéen ragal yàlla sax ñun ñaan ñëpp ci am nañuy wax dëgg te yàlla tax te bàyyi fen hmm, man li ma jàpp naa man mataar mataar mi fi mu nii man euh, heure bu ko tuddee rek damay xaw damay dellusiwaat man kay gis naa loolu fàttewoon naa ko waaye fi mu naa fi banaa fen fen moom mënoo koo bàyyi fen naa ko jéem ba de ci sa sang bii de lay daw mënu leen koo bàyyi sax yéen ñaar laay wax eh, mënu leen koo bàyyi yéen ñaar laa man de li ma wax dëgg la fu mu nekkee dëgg